Mm-hmm. dalee na jàmm ci li gën fës ci internet bi ñu doore ko coowal passeport diplomatique lim bi yokk na gannaaw député yooyee di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall xibaar bu bees yéenekaay bi di tribune fësal ko niki tey am na yeneen juróom-benn député uh, yuy nju njaaj ci mbirum passeport diplomatique bu ñu sukkandikoo ba léegi ci yéenekaay bi uh, ca maison d'arrêt bu Rebeuss takk der yi ñi ngi waajal bu baax seen ñëw euh, chambre fi fa Karim Wade Khalifa Sall ak kii di Bougazeli euh, newoon rangé nañ ko ba noppi ngir euh, gàttandu yile député ñu des ba léegi ci coowal passeport diplomatique bi yaay ak Mamadou Sall procureur bi ñaan ñu tekki seen mbalaanu kiiraay loole boo ootuwul du antu ndax bëri na ci ay député yu leen jàppal tànk ca assemblée nationale xibaar yi ci bitim réew ñu dem fële ca Corée du Nord euh, sandi nañu benn projectile ci géeju Japon ñu leeral rekk projectile euh, mooy euh, nga sandi lu am doole jëmale ko ci ay nit lu ci ëpp nag boo seete lor lañ ci jublu Corée du Nord nag seen njiit mi ngi tudd Kim Jong Un lii lañ leen indiloon ci li gën a fës ci internet bi ba beneen yoon incha allah.